waa gars <clears throat> yi xëy na li ma gis ngeen gis dama dégg rek bi ma ko gisee ma dem dellu dafay taxaw seetlu ak ay déglu donc loolu indiwaat ma ci bëgg ñun ñëpp ñu demandoo déglu gars yi parce que boo leen gisee li ma bind Macky Sall et les ministres menteurs li tax ma bind loolu nag dafa am solo parce que dañ fi am Ismaïla Madior Fall boo xam ne tey moom mooy ministre de la justice du Sénégal àdduna yépp dégg li mu waxoon ci Ousmane Sonko ak contumace ak wu dans dix bu constitué wu waaw donc contumace bi day jeex euh, ce qui est extraordinaire ñu déglu même Ismaïla Madior Fall bi ne Ousmane Sonko dañ ko condamné condamnation bi c'est définitif maanaam ci mbirum euh, seen contumace contumax tàppale yooyu ñu nekkoon même Ismaïla Madior Fall boobu ñu invité Abdou Karim Fofana ci benn émission télé adduna bi yëpp di xool Abdou Karim Fofana moom comme ni ñu leen di waxee rek xam nga ay fenkat moom li ñuy ne xam nga mag ñi daan ñu ne dëgg li tax dëgg neex dëgg dafa yomba a xam nga tey nit kuy wax dëgg nooy xamee ne day wax dëgg boo ko laajee même kàddu bi téeméeri yoon dala mën na la koo répété téeméeri yoon par contre fenkat nag lu mu añee sax da koy fàtte maanaam comme moom day fen bu fenee léegi boo ko laajaatee même mot bi bu koy waxaat dina am lu ci soppeeku. dama bëgg ñu demandoo ñun ñëpp ñu seetaan émission bi te ñu déglu Ismaïla Madior Fall attentivement laaj bu gàtt la rek. du gouvernement là monsieur le ministre euh, dagguma la moom euh, mi ngi euh, évoqué justement la condamnation de la l' affaire Mame Mbaye Niang bi nga xam ne ci lañ sukkandiku pour DGE bañ a joxe. non non non loolu wax ko. ah non non loolu loolu loolu Mohamed. non non ah, on va on va on va revérifier. non non bu ñu jaxase. <laughs> moo tax ma ne affaire yi. Ah. su ñu waxee ndànk rek. Mm-hmm. parce que moom bu waxee double communication le nuyul. na waxul loolu xam ne na waxul ko na wala su fekkente ne moo ko wax. Mhm. may proposé. mooy ñu arrêté émission bi si ñu xool ko xool ko ay jokkoon allez-y. waaw. Ah. Mhm. allez-y. Euh, candidat il faut d'abord être sur le fichier électoral. Mhm. Ousmane Sonko a perdu de vue de sa capacité à être Et du point de vue de notre loi, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, euh, c'est la conséquence normale des décisions de justice euh, intervenues dans l'affaire Mambeignan et Ousmane Sonko. Donc, le sous-préfet lui a notifié ses euh, Pour être candidat, il faut d'abord être sur le fichier électoral. Mm. Sonko a perdu ses droits civiques, en tout cas du point de vue de sa capacité à être électeur. du point de vue de notre loi, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, euh, c'est la conséquence normale des décisions de justice euh, intervenues dans l'affaire Mambeignan et Ousmane Sonko. Donc, le sous-préfet lui a notifié cette notifié affaire lii ñun ñëpp ko déggandoo ci télé Bougane ba nag comme ni ma leen ko waxee bu Bougane dafa taal télé bi léegi pour ñu def ko jéebaane kaayu Ousmane Sonko malgré loolu yëpp na saay ndeysaan ñu ne la yow booy eh, ndeysaan yow boo nekkee ci say pexe yu bon pour yàq yàlla nekk ci ay pexeem yu baax toujours da ngay nekk di galgal sa bopp nañu dem ñu dégluwaat Ismaïla Madior Fall une fois et Cour suprême. et pourtant le porte-parole du gouvernement là monsieur le ministre euh, Dagou Mbalo moom euh, mi ngi évoqué euh, justement la condamnation de l'affaire Mame Mbaye bi nga xam ne ci lañ sukkandiku pour DGE bañ a joxe. non non non loolu waxu ko. ah non non loolu loolu loolu Mohamed. non non ah, on va on va on va revérifier. non non non bu ñu jaaxase. <laughs> moo tax ma ne ah. waxee ndànk rek. Mm-hmm. parce que moom bu waxee loolu double communication lay nuyul. noo waxul loolu nga xam ne noo ko diir noo waxul loolu wala su fekkente ne moo ko wax. Mhm. li may proposé. waaye mooy ñu arrêté émission bi suspend. ñu xool ko ñu xool ko kon allez-y. waaw. Ah. Mhm. allez-y. dañuy xaar. Euh, pour être candidat il faut d'abord être sur le fichier électoral. Hmm. Ousmane Sonko a perdu ses droits civiques en tout cas du point de vue de sa capacité à être électeur. Et du point de vue de notre loi, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, euh, c'est la conséquence normale des décisions de justice euh, intervenues dans l'affaire Mambaïna et Ousmane Sonko. Donc, le sous-préfet lui a notifié, notifié euh, Pour être candidat, il faut d'abord être sur le fichier électoral. Mm. Sonko a perdu ses droits civiques, en tout cas du point de vue de sa capacité à être électeur. Et du point de vue de notre loi, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, euh, c'est la conséquence normale des décisions de justice euh, intervenues dans l'affaire Mambeigna et Ousmane Sonko. Donc, le sous-préfet lui a notifié cette affaire unique. li li vous vous voyez est-ce que yéen est-ce que vous savez le danger danger ñun est-ce que xam ngeen ci li ñu nekk maanaam dañuy jàpp nit ñu ne lan lañ ko jàppee ñu ne sàccum banaana beneen ministre génn mu ne fàtte ngeen ka ñu jàppoon fële muy xeex ak gardien bi je je n'ai rien compris léegi nekk na loo xam ne ñun ci suñu gouvernement Sénégal dañ ko def légalité maanaam lu légal mythomanie maanaam fen léegi ñun ci suñu gouvernement bu Sénégal dem nañu ba def ko loo xam ne trophée la ku dàq fen nga ne kii la ku daq fen abal sa morom te ku dàq fen moom la Macky Sall di jël décoré Est-ce que vous savez le danger du mensonge dans un gouvernement sérieux est-ce que xam ngeen luy danger fen maanaam ay doomu aadama yoo xam ne ñoom ci seen biir pour te dire seen incompétence xam kenn ku nekk ci ñoom xamul sax lan la ñuy toppee Ousmane Sonko kii nee na contumace kële nee na affaire Mame Mbaye Niang kële nee na lii kële nee na lële yéen te ngeen a jël kon rek Adji Sarr ngeen décorer ko ngeen def ko seen candidat APR ndax a ah, ci senegal bii ma gis ku ne mën naa doon président Sénégal bii ma gis nii moom ku caa mën naa ku caa na doon candidat saa neex doon candidat ñëpp ñëw doon ay candidat ça c'est pas lii du dëkk sénégalais bu ñu toogee ñu seetaan lii lii du dëkk ça c'est pas lii du réew réew moo xam ne kañu ne moom mooy le garde des sceaux moom mooy ñëw ci émission télé fen flagrant bay naan euh, maanaam journaliste bi ah non non non lii mënta nekk nañu arrêté nañu arrêté émission bi ñu dem dégluwaat journaliste bi arrêté émission bi reculer waat ko dégluloo ko ko kooku bu doon gor falay pare rek ne je démissionne de mes fonctions réew mi bàyyi naa kii mooy jàngal suñu ay doom droit constitutionnel kii la jàngul droit pénal moom droit constitutionnel lay jàngale laxam waaye day dem day dem day dem bu paree mu li mu jàng du ko jàngale mu dem jàngale li mu jàngul mi ngi mel ni nga ne prêtre bi kaay nga nekk imam wala nga ne imam bi kaay nga nekk prêtre ñaar yooyu demul parce que kii bible bi la jàng kale alxuraan bi la jàng Ismaïla Madior Fall est un constitutionnaliste professeur constitution la waaye buy wax muy wax ci ay affaire pénal di wax di fen di dajale di duula ka dajale rek lii moo ñu dal ci Sénégal Abdou Karim Fofana gis ngeen ko àdduna bi yëpp dégg nañ ko mu ne usman Sonko ci mbirum Mambay ñaa bi lañ ko daan ba nekkatul électeur Ismaïla Madior Fall déedéet moom mu ne ci mbirum contumace bi lañ ko daan ba nekkatul électeur léegi ban la ci te ñoom ñaar ñëpp ay ndombal tànk guvernement bi la ñoom ñoo yor kàddu Sénégal ñun fan lañu jëm on va où ça c'est pas un pays lii du réew xam nga ñun bu ñuy wax ñu bari dañuy defe naa ah, nii voilà histoire fitna non non non c'est pas ça ça c'est pas un pays lii du lu sérieux lii du réew réew mu normal du doxee ni dama leen koy déglu loo pour une dernière fois ndax tey dinaa leen laajal quatre fois tey Ismaïla Madior Fall ak Abdou Karim Fofana dinañ ma dégg ñeenti yoon. Cour suprême. Et porte-parole du gouvernement là monsieur ministre euh, Dagoma moom euh, mi ngi évoqué euh, justement la condamnation de l'affaire Mame Mbaye Niang bi. Est-ce que xam ngeen position Abdou Karim Fofana moom moo yor kaddu ku jéggi moom moo yor moom mooy porte-parole bu gouvernement Sénégal maanaam moom moo yor kaddu gouvernement Sénégal Abdou Karim Fofana. ñu dem déglu encore. et Cour euh, moom euh, mi ngi évoqué euh, justement la condamnation de l'affaire Mame Mbaye Niang euh, bi nga xam ne ci lañ sukkandiku pour DGE bañ a joxe. non non lool loolu wax ko. ah non non loolu loolu loolu moo nekk non ñu ah, jaxase. <laughs> moo tax ma ne affaire yi. Ah. suñu waxee dank rek. Mm-hmm. parce que moom bu waxee loolu double communication le nuyul. noo waxul loolu nga xam ne noo waxul noo waxul loolu wala su fekkee dem moo ko wax. Mhm. li may proposé. oui mooy ñu arrêté émission bi suspendre. ñu xool ko ñu xool ay cokkoon allez-y. waaw. Ah. Mhm. allez-y. dañuy xaar. Euh, pour être candidat il faut d'abord être sur le fichier électoral. Hmm. Ousmane Sonko a perdu ses droits civiques en tout cas du point de vue sa capacité à être Et du point de vue de notre loi, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, euh, c'est la conséquence normale des décisions de justice euh, intervenues dans l'affaire Mambeigna et Ousmane Sonko. Donc, le sous-préfet lui a notifié ses, notifié ses... Euh, pour être candidat, il faut d'abord être sur le fichier électoral. Mm. Sonko a perdu ses droits civiques, en tout cas du point de vue de sa capacité à être électeur. Et du point de vue de notre loi, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas Donc, euh, c'est la conséquence normale des décisions de justice euh, intervenues dans l'affaire Mambeigna et Ousmane Sonko. Donc, le sous-préfet lui a notifié ses notifications. xam nga dégg ngeen porte parole bu gouvernement bi nee na Ousmane Sonko perte na ay droit am nee na ci mbirum Mame Mbaye bi la ko perte mu ne sous-préfet bi notifié na ko léegi nañu dem ci légalité notification sous boobu te sous-préfet bi déjà comme niñ ko waxee ñoom nee nañu notifié nañu ban sous-préfet moo war a notifié Ousmane Sonko déjà bu fekkee sax ci lu légal la waaye comme ñoom déjà dañu perte ay pédal kii day waxee nii jëmee na la kii waxee jëmee na maanaam ñoom seeni ay kàddu àndul maanaam ñoom mën nañoo rey ay nit dellu ginnaaw ne ah non attends dañoo juum waruñu ko woon rey dañ ko waroon tëj un voici le danger d'un gouvernement incompétent lii mooy suñu danger ñu dem ñu déglu Juan Branco li mu wax ci notification boobu. le pouvoir qui va dire ah oui mais vous ne le faites pas dans les temps c'est le premier point ensuite euh, c'est le sous-préfet de Dakar qui a cherché à notifier à monsieur Sonko le fait qu'il était radié des listes électorales alors même que monsieur Sonko est inscrit à Ziguinchor donc de toute façon la décision que l'on a tenté de. voilà déglu leen Branco nee su préfet bu Dakar moo jéem a dem notifier Ousmane Sonko de sa mais bu leen fàtte ne Ousmane Sonko est inscrit à Ziguinchor maanaam sous-préfet bu Ziguinchor moo mën a notifier Ousmane Sonko mais pas bu Dakar bu fekkee tey yow da nga inscrire Matam Podor mënu laa mënul ñëw notifier la waa Matam ñoo lay notifier donc déglu leen encore li Juan Branco wax delluwaat ñu dellu si waat. Euh, le pouvoir qui va dire ah oui mais vous ne le faites pas dans les temps ça c'est le premier point ensuite euh, c'est le sous-préfet de Dakar qui a cherché à notifier à monsieur Sonko le fait qu'il était radié des listes électorales alors même que monsieur Sonko est inscrit à Ziguinchor donc de toute façon la décision que l'on a tenté de lui notifier est nulle ensuite il y a le fond de la décision c'est-à-dire qu'on prétexte le fait qu'il aurait été condamné pour le faire radier alors qu'il est entre les mains, entre les mains du pouvoir. Il est aujourd'hui dans... Branco ñëwaat na ci encore mu ne nee nañu litax tax ñu raje ko ci liste électorale yi il a été condamné par contumace ngeen dégluwaat ma de Juan Branco nee na ñoom nee nañu li ñu raje Ousmane Sonko dañ ko condamné par contumace ki nga xam ne moom mooy porte parole gouvernement bu Sénégal Abdou Karim Fofana moom nee na li tax ñu raje Ousmane Sonko dañ ko condamné ci mbiru Mame Mbaye donc maanaam Ousmane Sonko inscrit à Ziguinchor ñu koy jéem a notifié ak sous-préfet bu Dakar manta nekk Ousmane Sonko bëgg ko raje ci ay liste électorale ñu ne dañ ko jàpp ci mbirum contumace contumace moom mooy maanaam un contumax mooy nit ki ñuy wër ñu ne dañ la juger par contumace ñoom bu ñu la jàppee rek la nga xam ne moom lañ la atte woon dafa niil dañ la war a war a attewaat loolu tamit mën naa leen ko indil ci ay kaddu Ismaïla Madior Fall moom ci boppam mu leeralal ñu ko aca bismillah constitué prisonnier wala ñu jàpp am na dix jours pour acquiescer ou refuser dix su dix yi passé te acquiescer wul mooy accepté su dix jours yi passé nag quatrième étape mu ne affaissé wu ma day contester décision bi opposition lay def su defee opposition mooy quatrième étape bi ñu rejuger waat affaire bi par la même juridiction voire la même composition uh-huh. cinquième étape mun na am foofu confirmation de la peine wala infirmation de la peine leer na mm-hmm. ñu ñëwaat encore ñu ñëpp déggandoo ki nga xam ne moom mooy Ismaïla Fa Madior Fall Ismaïla Madior Fall nee na àdduna bi yëpp Sonko bu constitué woo comme prisonnier dañ koy attewaat moom ci boppam bu constitué woo dans dix jours bu ñëwee mu contesté décision bi nga xam ne jàpp nañ ko wala ne wala contesté na ko dañ ko war a attewaat te Sonko àdduna bi yëpp yëg nañ ne biñ ko jàppee daf ko dindi léegi ñu ñëwaat encore une fois ñu déglu Ismaïla Madior Fall. constitué prisonnier wala ñu jàpp am dix jours pour acquiescer ou wala ñu jàpp am dix pour acquiescer ou refuser dix jours su dix jours yi passé te acquiescer wul mooy accepté na su dix jours yi passé nag quatrième étape mu ne acquiescer wu ma day contester décision bi opposition lay def su defee opposition mooy quatrième étape bi ñu rejuger waat affaire bi par la même juridiction voire la même opposition cinquième étape mun naa am foofu confirmation de la peine wala infirmation de la peine leer mhm. na. loolu ñun ñoo ko déggandoo. Cour suprême. et pourtant le porte-parole du gouvernement là monsieur le ministre euh, euh, mi ngi euh, évoqué justement la condamnation de l'affaire Mame Mbaye Niang bi nga xam ne ci lañ sukkandiku pour DGE bañ a joxe. non non non loolu waxu ko. ah su non loolu loolu loolu moo nekk non non. Ah, on va on va on va revérifier. non non non bu ñu jaaxase. <laughs> moo tax ma ne affaire yi. Ah. suñu waxee ndànk rek. Mm-hmm. parce que moom bu waxee loolu double communication lay nuyu. na waxul loolu nga xam ne na waxoo ko wala su fekkee ne moo ko wax. Mhm. li may proposé. mooy ñu arrêté émission bi suspendre. ñu xool ko ñu xool mhm. euh, pour être candidat il faut d'abord être sur le fichier électoral. Mhm. Ousmane Sonko a perdu ses droits civiques en tout cas du point de vue de sa capacité à être Et du point de vue de notre loi, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, euh, c'est la conséquence normale des décisions de justice euh, intervenues dans l'affaire Mambeignan et Ousmane Sonko. Donc, le sous-préfet lui a notifié, notifié euh, Le sous-préfet lui a notifié, Diapolen Fofutamina, ah. nee nañ sous-préfet bi ko notifié nee na c'est l'affaire Mambay Niang kële nee na c'est l'affaire Contumax ba pare sous-préfet bu Dakar moo ko notifié loolu ñun dégg nañ ko léegi nañu demaat rek encore une fois ñu déglu Juan Branco ba mu jeex incha allah tey moom gars yi bu leen yàkkamti bu ma paree nii live bii dinaa ñëwaat ci kanam encore defaraat leen beneen bu gën a saf ñëwaat encore ci kanamaat encore defar leen bi gën a saf. le pouvoir qui va dire ah oui mais vous ne le faites pas dans les temps ça c'est le premier point ensuite. Euh, c'est le sous-préfet de Dakar qui a cherché à notifier à M. des listes électorales, alors même que M. Sonko est inscrit à Ziguinchor. Donc de toute façon, la décision que l'on a tenté de lui notifier est nulle. Ensuite, il y a le fond de la décision, c'est-à-dire qu'on prétexte le fait qu'il aurait été condamné par contumace pour le faire radier, alors qu'il est entre les mains entre les mains du pouvoir. Il est aujourd'hui à l'hôpital en détention, placé sous écrou euh, dans, une prison. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être contumace vu qu'il a été arrêté. Les arguments qui ont été présentés par le ministre de la Justice sont évidemment parfaitement vains et complètement contraires à la jurisprudence constante. Maintenant, la question qui pose, c'est quel est le degré d'autonomie et d'indépendance des juges à cinq mois euh, l'intention du peuple sénégalais. Il leur appartiendra de faire appliquer le droit ou de se mettre au service d'un régime finissant avec les conséquences qui pourraient s'en En tout cas, je pense que la position d'Ousmane Sonko est très claire. C'est aujourd'hui l'un des hommes les plus populaires au Sénégal. Il a juridiquement la possibilité de se présenter malgré les vexations que l'on cherche à lui imposer, le refus par la DGE de lui transmettre les, formulaires de parrainage contre ce propre arrêté qui a créé ces formulaires de parrainage. je pense qu'il y a une situation qui est très claire. Ces élections ne pourront avoir lieu sans Ousmane Sonko, parce que si elles avaient lieu dans ces circonstances-là, cela voudrait dire que le peuple sénégalais serait privé de son droit à choisir et on se retrouverait face à une farce démocratique. Et c'est strictement impossible. Et notre fonction, en quel que soit le peu d'espoir que l'on peut avoir face à l'indépendance de la justice aujourd'hui, pour mettre face à, la responsabilité des magistrats, en leur rappelant que les décisions auront un impact pour l'ensemble des Sénégalais et qu'ils pourraient aussi entraîner des conséquences personnelles parce que nous serons très attentifs aux violations du droit qui pourraient intervenir et aux recours que nous mettrons en œuvre à l'échelle internationale, suñu frère Ousseynou lii am na lu mu wax lu am solo nañu dem ñu déglu ko bismillah président Macky Sall def nànk ci mbiru Ousmane ko dafa am benn wax bu président Sonko wax muy xeex bii ñuy xeex mën nañ cee ñàkk ay dunk waaye Macky Sall mën nañ ci ñàkk lu ëpp dunk te y a un pouvoir y a après pouvoir nguur dafa am nguur guy jeex am nguur gu jeex am na xalaat tax ko tàkkusaan bi muy def passation de service quatorze heures te quinze heures googu su ko defee ba ñu gunge ko ba mu génn pare na ko xalaat wax jooju e luy firim xëy na su mënee dégg wala su amee ñu ko mën a firil. Hmm. ñu firil ko ko. yow doo ko firil ñi lay dégg. non mais na xalaat li mu wax na moytu li muy def jëm ci président Ousmane Sonko xëy na dina jafe mu amati ci limite waaye li ko ci dese ak mu néew na ci ut limite am lu ci rafetal am lu mu bàyyi. daf ko atteindre. nit dangay am looy desal. Hmm. wolof da koy wax nit. Hmm. da am looy desal. desalal dara topp gi mu topp président Ousmane Sonko na am lu mu ci desal ngir sauver boppam. ngir sauver boppam ah ngir sauver boppam loolu laa lool laa lool laa laa gis parce que ndax moom laay amul emprise ci destin président Ousmane Sonko di nga li Ousmane Sonko am. Hmm. fileeg neexul suñu borom mu bind mu wax ni lii dàq na jeex na. mindeef ci kaw suuf du moo yaa ko mën a arrêté. amul li mu am coobare yàlla la lu ko suñu borom defal la ay nit yu ko bëgg sopp ko yéene ko du xam-xam gu mu ëppale nit ñi du taar gu mu ëppale nit ñi du juddu gu mu ëppale nit ñi du alal gu mu ëppale nit ñi du ay teraanga yu muy jox nit ñi déedéet nit ñi ñoo ko bëgg tey yàlla tax te loolu yàllaa koy def du Macky Sall du Ousmane Sonko du man du keneen ak keneen ça j'ai dit di un discours hors politique. maanaam na am fu muy des. ci yow ni waaw fi toll na ko bàyyi mu génn. li li wolof di wax naan mu ne ci mbiru boppam. li wolof di wax naan. nit danga am looy desal. waaw digganteem ak président Ousmane Sonko topp gi mu ko topp. na am lu mu ci desal. li mu ci desal mooy. mooy moom laa la nii. na xalaat bis bu defee passation de service quatorze heures ou quinze heures boobu. day pare ñibbi moom moment boobu à partir de ce moment là na ko xalaat. Hmm. maanaam titre ancien chef d'état boobu na bàyyi xel. Ah. waaw na am lu ma desal. kooku moom du du du waxu opposant du waxu politique waxu citoyen sénégalais la bu juddu ci réew mi naam xale laa waaye am na lu ma dund am na yu ma gis. am na yu dox ci politique yu bëri ma gis. Hmm. nit da ngay am looy desal buum kenn du ko tegal ndax su tegee rek su daggee sa kaw la jëm. Hmm. waaw. te yegg si nañ ci niveau boobu. ah non mu na nag. gars yi maa ngi leen di sant di leen gërëm ba ci kanam incha allahu rabbi dinañu ñëwaat continuer indi leeral yi nga xam ne moom la ministre Macky Sall yi jaxasoo pour continuer yëgal sénégalais yi aussi ne. mbirum Ousmane Sonko ci suñu loxo la nekk Ousmane Sonko ñun ñoo mën a tax mu doon kandidaa usmaan Sonko ñun ñoo tax ñun ñoo war a tax mu falu usmaan Sonko ñun ñoo war a tax ñun ñun ñun ci ñun la dépendre pour Macky Sall man koo xañ quoi que ce damay ñaanaat sénégalais damay ñaanaat sénégalais yi ci barki yàlla mu tedd bi ma di ñaan ñu def lépp lu ñu man pour arrêter hémorragie bi nga xam ne moom moo xew ci suñu réew mi fatt pax yi yëpp arrêté ko de tout bord damay ñaanaat sénégalais yi ñu def lépp lu ñu man ba tournaar bii ci histoire u Sénégal bu mu ñu raw parce que tournaar bii bu ñu rawee mënatuñu koo dabe tournaar bii bu ñu rawee dinañu dundaat beneen téeméeri at wala ñaar téeméeri at bala ñuy amaat lu mel ni Ousmane Sonko pour indi ko fal ko Sénégal néew ma moo ñu gën ñun ñëpp ndax Sénégal bari na ay nit ñu baax waaye nit ñu baax ñooñu nu ñuy def xeex ba yegg fii ñu yegg ci xeex bi ba dara desul du dul ñu atteindre some bi ñu bàyyi benn groupe bandi benn groupe délinquant ndax ay intérêt personnel ñu baare ñu yoon bi yàlla nag comme ni ko gars yi di waxee toujours buy defar day mel ni ku yàq xam ngeen ne ba ñu tànnalee ku mel ni Amadou Ba candidat xam ngeen ne yàlla ñun la àndal ndax kooku buñ ko jëloon léegi yóbbu ko élection ak xale bu juddu démb ci Sénégal mu duma ko Amadou Ba buñ ko yóbbu woon élection ak ay tànk waxuma nit sax nit bu mat ay tànki kese bu ñu yóbbu woon amadu Ba candidat bëgguma sax manqué respect bëgguma tudd ay turu nit waaye dégg naa ndeela Madior sax mi ngi def parrainage Ndella Madior bu demoon candidat ak Amadou Ba midi balaa deux heures mu duma ko Ndella Madior laa leen wax suñu sœur bi suñu yaayu orphelinat boobu sénégalaises yu baax yi bari nañ fi sénégalais yu baax yi bari nañ fi pourquoi ñuy toog di bàyyi bandi yii ñu ñuy xoj pourquoi pourquoi on on accepte ça pourquoi We shouldn't accept it. You should not settle for mediocrity, mediocrity, mediocrity. kenn waru koo nangu maa ngi leen di sant di leen gërëm incha allahu rabbi dinaa ñëwaat ci kanam continuer waxtaan bi ak yéen jërë leen jëf